waa sa waay man maa ngi dajeeg yow ngay waaxu rek foo jëm nii man daal sëñ jamono bi dama jaaxle école a ngi waaj a ubbi te sama doom yi amaguñu benn fourniture moo tax xamatuma nan laa war a def dama sa coono jeex na demal ci établissement Kër Ibou établissement Kër Ibou lépp loo soxla ci wàllum fourniture scolaire jëm ci année deux mille dix-neuf deux mille vingt am na fa dañ fi fekk. Le loo xam ne aju woon na ci ay fournitures scolaires cahier graphique de haute qualité ay livres au programme li ko dalee préscolaire ba terminal seen matériel géométrique ay protège cahier ay gomme ardoise ay crayon noir de couleur marque Mapei ak seen bépp manuel scolaire établissement cœur Ibou dama ne dinañ la jox ay cartable yu mucc ay say classeur naka noonu bépp xeetu papier à 3 ak seen i feuille ak cahier de dessin qualité exceptionnelle établissement que Ibou fi fekk itam sac yu ràññeeku ay sac yu rafet sac yu bas, sac de qualité supérieure ci bépp âge ak nag bourse madame, pap du ko ci soxla wala yaay ju ko ci soxla dama ne nga fa am sac ngir sa doom. su ngeen ñu bëggee daf mën ngeen ñu 77 605 55 36 ou 33 836 02 22 wala 33 836 36 97 Fibre école du Ubi, le lu ngeen soxla ci fourniture scolaire Double établissement Kër Ibou rue Ousmane Sosejo. ah je de xamee pas ma établissement Kër Ibou rek fourniture scolaire.